waaw foire bi ñoko organisé, organiser nek ci ben programme bu nga xamné dañ ko tuddee vraiment pour ñu dooleel sécurité alimentaire ak aussi jappalé jigen ni ci sen euh, pour autonomie euh, au niveau politique et au niveau économique li nga gis projet bi un partenariat bu ñu am Indagraf ak Espagne donc ay ONG espagnol bu ñu tuddee Enraíz de ak la fondation CEPAI

si wàllu céréales wàllu fruits et légumes mais former aussi au plan technique jigéen ñi nga xam ne dañ nekk dans le secteur de la restauration bu formation technique yooyu weesoo jàppale nañ leen aussi si wàllu leadership jàppale nañ leen si wàllu gestion nu ñuy saytoo seen xaalis mais jàppale nañ leen aussi ci wàllu genre maanaam diggante góor ak jigéen ak jigéen ñi nan la ñuy mën a def ba seen place ñu gën ko mën a am si société bi si communauté bi. bi loolu weesoo nag ñu fexe ni ñuy lëkkalee. ñi nga xam ne dañuy bay ñi nga xam ne dañuy transformer ak ñi nga xam ne dañuy nekk ci restauration ñu nekk benn chaîne pour que lépp lu nga xam ne ci gox bi la jógee ñu koy transformer di ko utiliser euh, communauté bi yëpp mën si gis seen bopp. foire bi boo gisee li tax ñu def ko nag mooy boobu wax léegi ñu ngi liggéey ak ñoom mais tey ñu def lu nga xam ne dañuy fësal seen liggéey wane seen bopp di remercier autorités yi nga xam ne ñëpp ne teew nañu muy sous-préfet muy. Euh, Euh, le maire, aussi le commissaire général, le commissaire de police, qui que nous sommes tous les communautés, nous sommes tous les communautés, nous sommes tous les communautés, il faut que nous sommes tous les communautés. Au passage, aussi, nous remercions Wale, Badjenu Gohi, à la sous commission de la femme, qui est vraiment de plus en plus, fait son leadership au niveau de la localité.